محمد سرا وجهرا في برايا الصمد لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا الصمد مدى لنا الإسلام والكفر معا وبالنصيحة لكل سمحا يقود بالسائل والباطن من أتاه لله في كل زمن

فيما مضى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له سيادة له البراءة يوم ألست ولد الشفاعة هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب الكمال وزاله القدوس عن غير كمال كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار

بغير درهم ولا دينار نفعهم برمضان رافعون نفعهم بالصلوات نافعون مد لهم من النفوس الباقي ذو الأرجين صفي والدباغ ضيافة الباقي لدى الجنان أجر الذي ما يملو لا ينفد أجر كبير ما تراه نفد نفوسيا بشر في الدارين يكفيكم الغارين والنارين عبدتم الله الكريم الأكرم بخير شهر قد يقود الكرم إلى سواكم تنتهي النيران

la nga mën a dem ba ci réew yooya nga mën a dugg ci daaray kaamil liire ko foofa waaw machine yi mool. waaw machine yi nga xam ne mooy mooy mooy mool téere yi ak xasaayid yi nga xam ne euh, mooy xasaayid Serigne Touba yi ak itam euh, li nga xam ne mooy majmuwa li yenn sagesse yi Serigne Serigne Touba Xaadimu Rasuul doon wax Serigne Abdou Lahad dajalewaat ko ci ay téere ñu mool ko génne ko moolaat xasaayid yi Serigne Touba yi itam génne ko dajale itam mboolem loo xam ne patrimoine matériel la bu fi Serigne Touba bàyyi woon mu indi ko daaree kaamil ñu toppatoo waat ko dugal ko ci saal yi ko ba nga xam ne dinañ ko mën a sàmm ba dara du ci sikk yaa ngi nii waaye itam euh, mbind yoo xam ne sëriñ Abdul Ahad bindoon na ko ci ci daaray Kamil. ci la teg xeer wi liggéey bi yegg ci 1977 ci jamono booba li mu njëkk a def mooy génne 50 millions de francs fa teg ci taabal yi ginnaaw bi nga xamee ne wax na ci ak architecte bi ba pare. génne 50 millions jox ko doo ko def déclaration ne képp nag koo xam ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa loo am def ko ci. matériel bi nga xam ne moom laa la doon wax léegi yennet ci ay jifir muy defukaayu téere ak yennet ci ay jumtukaay yi nga xam ne Serigne Touba Xaadimu Rasul doon na ko jëfandikoo bi mu fu nekkee mu dajale yépp nag indi ko daaray kaamil ca jamono booba mboolem ñi nga xam ne it amoon nañ ko ca jël woon Serigne Abdoul Ahad lool yéene ko ko lool kenn ku nekk la nga ca am nga sëf ko andil ko Serigne Abdoul Ahad ngir mu def ko ci biir daaray kaamil lii itam mooy lettre bi ñu la doon wan léegi foto yi kii Serigne Abdou Lahad la kii Serigne Abdoul Khadir kii Serigne Saliou Mbacké di benn article boo xam ne ku ñuy wax professeur Adama Madior Fall di taalibeb sëriñ Abdoul Ahad moom moo ko def bind ci étapes yu bëree bari ci dunduk Serigne Abdoul Ahad ci ganek àddinaam ci réalisation yu am solo yi nga xam ne def na ko ci yoonu murit moo xam réalisation yi nga xam ne matériel la wala yi nga xam ne c'est matériel lenn lu ci nekk dikk na ci ci article bi yaatal ko ba mu yaatu lii itam di ay nataal yoo xam ni dajale nañ ko ci baas bi lu mel ne kart bi nga xam ne mooy Touba ak ni mu bindoo ak itam euh, liggéey jumaay Touba ji sànce yi euh, lii di Aynu Rahmati lii di kër sëriñ Touba résidence Khadim Rasoul nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko njëkk a ci yoonu Mouride def ko fi ba tey jii mu yaatu fépp ci àdduna bi am esprit boo xam ne esprit social bu am solo la foo mën a dem ci àdduna boo amut foo dëkk te am fa kër Serigne Touba boo fa demee ñu dalal la di la dundal ba baa ngay mënal sa bopp demal sa bopp loolu ngin ginnaaw yàlla ndimbalul Cheikh Abdoul Ahad moo tax mu am ci réew mi waaye am ci bitti réew mi ba nga xam ne tey jii sénégalais yu baree bari bu ñu demee à l'extérieur yenn coono yi duñ ko dund ngir kër Serigne Touba ya fa nekk. ci atum 1969. la ko sanc ni mu ko tënkee woon mu ngi nii kenn ku nekk daf la sas nga indi ab néegub ñax muy néeg yi mesra indi mesra indi benn néeg waa baraan indi benn néeg euh, noonu la ko toppee ñii ñëpp kenn ku ci nekk defar nga benn néeg ñi ñaari néeg euh, ñu indi ko Touba muy néeg yi ngay gis di ay néegi ñax yoo xam ne ca jamono booba moom la sëriñ bi sañcee Touba dafa jëm ci wàllu bëgg sëriñ Touba ak euh, liggéeyal alxuraan ni ko sëriñ Abdul Ahad taxawe photo yii di yi koy jëmmal lii di mbind mi nga xam ne mooy li koy jëmmal sëriñ Abdul Ahad def ci réalisation yu am solo yoo xam ne moom itam fu waay xool gis ko ci yoonu murit waaye fu waay làmb it daj ko ci yoonu murit ni ku ñu ko rombe ci yenn ci ay tablo yi nga xam ne romb nañ ko lii di photo carte d'identité bu Cheikh Abdoul Ahad Khadim Rasoul yi itam ji ay nataalam yi nga xam ne ay nataalam yi jiitu la njëkk muy doon xalifab Serigne Touba nga xam ne Serigne Abdoul defoon na ko en 1981 bi nga xamee ne président Léopold Sédar Senghor ñëwoon na di ko tàggu si xamal ko ne ko dey bàyyi réew mi euh, ngir dem booba Serigne Abdoul Ahad ne ko nag yaa ngi dem waaye na nga xam ne réew mi yaa leen ameel cant boo leen santee benn buñ ne la santee benn war nga leen a sant fukk ndax dañu laa fal far la te waruñu la ndax bu ñu la farutoon sab liggéey du yegg sab liggéey du rafet waaye bu ñu la waroon it sab liggéey du yegg lii itam di ab discours boo xam ne itam ak lenn ci li koy xamle moom Serigne Abdoul Ahad te ñu bind ko ci euh, français waaye bind ko itam ci ci ci làkku nasaraan bi ma doon wax léegi lii mooy photo yi nga xam ne ñoo koy jëmmal di ko dëggal muy discours 1981 bi mu ngoog màggalu Touba 81 bi président ñëwee di tàggu si Sëriñ Abdou yenn net ci ay extrait yoo xam ne 1981 euh, la ba tey dafay mel ne màggal googa discours bi dafa riche ndax di ko Sëriñ Abdou Lahad tënkee woon euh, wax ak président de la république noppi nag wax ak jullit yi noppi nag ne leen may leen ma wax ak sama mbokki taalibe yi nga xam ne discours bi dafay làmb contenu bi dafay làmb ñetti point yu bokkul yoo xam ne benn mënu cee ñàkk ndax li mu waxar li mu war a wax ak euh, autorité politique yi dina ko wax ak ñoom li mu war a wax ak autorité religieuse yi dina ko wax ak li mu war a wax ak njaboot gi nga xam ne ñoom la yilifit dina ko wax ak ñoom moo tax léeg-léeg sax daana jël tee témoin autorité politique yi teew ne leen dama bëgg nag tey ngeen toog fekke xam li ma war a wax ak taalibe yi maa ngi koy wax ak ñoom la ci ay sagesse yoo xam ni sëñ Abdul Ahad da ko daan wax li ñu ci dajale nag ci ay tablo mat na téeméer ak lu topp ci ay sagesse yoo xam ne sëñ Abdul da ko doon wax yii dafa wax ne ni ñuy yore aw nit booba président de la république Abdou Diouf la toogal ne ko ni ñuy yore am réew daal dama ko jàngul waaye ni ñuy yore aw nit akub dëkk moom xam naa ko mooy juróom yee leen di yor ba ca njëkk da ngay wulli sab der ngir mën a dékku lori nit ñi ba ca topp mooy foo dégg njariñ boo xëyee foo dégg njariñ dem wuti ko indi ñetteel ba mooy boo ko indee nga teg ko ci ëtt bi nangu koo bokk ak ñëpp ñeenteel ba mooy boo ko bokkee ñëpp nag nga nangu caa gën a néewle juróomeel bi mooy baat baat ci bopp lay sax kilifa gu nekk sa baatu kër nga téyal ko sa bopp daan juróom yi moo yor am réew président daan ne ko rek président Abdou Diouf ne ko yaakaar naa ko ko yore am réew it dana jàkk <laughs> ni ngeen ko gisee eh, ñu leeral leen ko nii commission culturelle bi di ko def ci ndigalul Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad wax na ko léegi ñu mi ngi ko sos 2008 li waral mu sos ko it ak eh, mat nay leeral ndax ku mel ne Cheikh Abdoul Ahad xam nga ne ñu bëri danañu am yéene di ko waxtaane te mu doon géej goo xam ne mënañ ne mënees nay jariñu ci moom mu wax ne daal dégg na ñuy wax wax yoo xam ne ci Sëriñ Abdou Lahad jàpp na ne warees naa mën a jubbanti waxin yooyu ci la ñu woo ci coobarey boppam seet ñi nga xam ne ay Abdul Ahad lañ te seen waajur yi doonoon ñoo xam ne ay kilifa lañ ci dëkk bi mu jox leen ndigal loolu ne leen na ngeen fexe ba lépp luy gëstu wala luñ mën a jariñoo ci Sëriñ Abdou Lahad dénk naa leen ko ngeen ngeen di ko jëmmal loolu moo tax ñu sos commission bi 2008 mu am ay sous commission yoo xam ne te saare nañ ko benn bi muy euh, al ihlaamiya commission communication am culture muy saxaafa am commission boo xam ne ñoo yor wàllu gëstu yi am commission boo xam ne ñoo yor wàllu denc ci arsif yi muy njariñ yi ak commission boo xam ne mooy coordonné liggéey bi tax na nag ñu séddale ko ci ay anam yu bëri muy danañu jël ay témoignages ñoo xam ne ay mag lañ fii may wax ak yow li ñu am ci ay témoignages yoo xam ne seen digg ak Cheikh Abdou Lahad tey bu ñu ko jëlutoon te mag ñu bàyyikoo nañ fi muy njariñ loo xam ne mi ngi fi ay kilifa yu mag yoo xam ne dund nañ Cheikh Abdou xam ci moom lu bari muy ay njariñ yooyu lañ ci jël kenn xamul nu mu toll euh, at mu jot noonu la ñuy gis ngeen ren gis ngeen ne euh, am nañ ay témoignages yu bëri yoo xam ne gis ngeen ko muy jàll ci rajo yi ak télévision yi te ay kilifa la ñu doon yoo xam ne yu dund Cheikh Abdou Lahad lañ yu ko xam lañ ren ji gis ngeen sëñ Mamour sëñ Mourtala gis ngeen ko ni mi ngi jàll sëñ fàllum suñu soxna bu sëriñ abibu mu sëriñ fàllu sëñ Moustapha bu xaadir sëriñ basiru antañang xalifa daaru musi eh, ak sëñ ku mel ne sëñ abdou lahat saane eh, sëñ fàllum suñu soxna bu wax naa ko léegi wax naa sëñ Mamor léegi ak sëñ fàllu bu sa tamba ñooñu eh, li ñu leen di jël mooy témoigner Cheikh Abdou Lahad wax ay njariñ yu ñu mën a jariñoo ci moom ñu di ko envoyé rajo yi ak télévision yi niki noonu télévision yi tamit noonu la ñuy liggéeyee ak ñoom di di fa yabal ay borom xam-xam yoo xam ne dañuy dem ngir di wax njariñul Cheikh Abdoul Ahad niki noonu tamit moo am commission boo xam ne moo yor wàllu gëstu yi muy maxarat bi Cheikh Abdoul Ahad Moutalib jiite ko nga xam ne lépp loo xam ne mooy lu ñu mën a jariñoo ci Cheikh Abdoul Ahad ci xikma yi muy exposition bi ci xikma yi ak ci ak dundam ak ay réalisation waaye surtout euh, ay jëflanteem yu rafet yoo xam ne ndaw yi jàng danañu mën a ñëw di ko gëstu xam nga ne li ngeen dégg ñu wax ko ci xikma tey yaakaar naa école école yi ak euh, jàngalekat yi war nañoo mën a jariñu ci ndax mbir la moo xam ne soo ko waxee gone da koy jariñoo léegi-léegi loolu nag dafa doon noonu loo xam ne lu lu lu lu lu laqatu la beneen bi it am na benn euh, loo xam ne commission bi moo ko sos muy jël discours Sëriñ Abdou Lahad di ko di ko di ko jàngat loolu tamit dafa doon loo xam ne jàpp naa ne ñi yëngu ci wàllu commission culturelle yu mel nii war nañ ko roy ndax ku mel ne Sëriñ Abdou Lahad ay discours am dafa doon loo xam ne buy ñëw géej la day sotti ko kon war nañuy seet boroom xam-xam boo xam ne day jël discours bi jàngat ko moo tax at mu jot euh, euh, bu bisu màggal gi ci ginnaaw timis danañu seet boroom xam-xam ñu jël benn discours am jox ko ko mu jàngat ko génn ci ay njariñ yoo xam ne nit ñi dañ ciy mën a jariñu bu baax a baax muy loo xam ne daal wax dëgg laa wax dëgg njariñ la loo xam ne suñ suñ siy di euh, mi ngi ciy dimbalee jullit yi di ci dimbalee jaam ñi ñun ñi nga xam ne tamit ñoo ci nekk mu ñu ciy liggéeyloo ñu ciy jariñu ndax ñun ak yéen ñoo ci bokk yam maanaam delloo njukkal la goo xam ne ak cant la goo xam ne suñu waajur yi tudd nañu Cheikh Abdou Lahad loolu dana leen bégloo fañ nag ñi nga xam ne seeni waajur a ngi dund it ñu ngi ciy bég di ci di ci am bànneex muy tiyaaba yu rey rey yoo xam ne ma la jullit yëpp di ci jariñu loolu daal ci tënk mooy liggéeyu commission culturelle bi nga xam ne ñoo jëmmal lii ak liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def euh, ñu ci jariñu ak ay film documentaire yëpp ñu fas yéene xam naa ne incha allah yooyu yëpp bu dajee dana am téere boo xam ne danañ ko danañ ko bind génne ko ci Cheikh Abdou mu tënk dunduk Cheikh yoo xam ne day bàyyi ko ci ay jëmm yoo xam ne lu wóor lañ lay wax nga xam ne boobaak léegi daal moom doo déggati ku wax ci Cheikh Abdou lu wérut wala boo ko déggee xëy na jëlewu ko ci commission bi wala mu jële ko ci ndigalul sëriñ bi loolu mooy njariñ li nga xam ne mooy njariñu commission bi. wax na jërëjëf ngi am mbégte ci teew ci euh, exposition bi ànd ak euh, monsieur le ministre mu ñëwoon tey ziare ji bi muy wala réew di sëriñam di xaritam di ki nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di monsieur le maire Abdou Ka sëñ Abou bi ngi nii ci sama wetu ndeyjoor ñu fekk leen fi nag yéen itam commission bi ngeen di ay duñu jàmbaare yéen ñëpp di ñu bokk turandoo sëñ Sidi doyloo leen wóolu leen tànn leen te li ngeen wane fii day tegtale ne daawut juum waaye te bii moo ci rawati ndax liggéey bi ngeen liggéey fii liggéey bu rëy la ndax sëñ Abdou Lahad dundam day day géej te dajale gi buñ ko deful nit ñi niñ ci mën a jariñoo moom it sax dañuy xuus ba far ci lab mooy xase yu bari yi ngay dégg ñu koy nettali te dara ci wér lii ne day mel ne may ngeen ñëpp ab delluwaay boo xam ne ku dikk fii rek dina xam kan mooy Cheikh Abdou Lahad lu mu doon dund ci fànn yu bari fànn yooyu li muy bari bari ma su ko tënk rek ci genn fànn ndax foofu rek lay delluwaat muy dafa nekkul liggéey ak liggéey seriñ Touba nekk koo xam ne dunam gépp xidma la woon wane ngeen fi li nga xam ne tabax na ko ci dëkk bi ci ay tabax yoo xam ne dañ koy gis ci ki teg bët waaye la loolu la ca raw ëpp ko doole mooy li nga xam ne tabax na ko ci jikko yi tabax ko ci nit ñi jubbanti ko defaraat ko ci dëkk bi ba tey ji dëkk bi mel ni mu mel raxas gi mu ko raxas rek ngeen indiwaat leetar bi daaw jéeg moom la Cheikh moom Mountakha feddali ba tey ji ñëpp ci lañuy dox wax xam ni am solo yi ngeen indi amul benn philosophe wolof wala benn waykat boo xam ne te mos naa wax wax yu mel nii kon loolu lépp itam day delluwaat ci njariñul doomu aadama yi te loolu mooy indi woon Serigne Touba la ko Cheikh Sidi waxoon ne ko un pour l'humanité Serigne Touba loolu Cheikh Abdou Lahad loolu doon symboliser kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant itam ki sa taxawaay di la sant ci ni nga jàppee sëriñ bi di la sant ci kóllëre gi di la sant ci li nga jàpp yoon wi di la xam ne ñun amuñ ku dut kii ci biir kër gi kon ñëpp nu koy def rek muy ñun ñi ñëpp na nga xam ne jàpp nañ la noonu ndax gis nañ ni ma la def bi nga dikkee te loolu sa yitte ak sa farlu moo la ko may kon nañ ne ñaanal yàlla mu nettal la nekk sa kanam ñaanal yàlla mu musal la ñaanal yàlla lépp loo xam ne yaa ngi koy yóotu rek suñu borom defal la ko ci anam goo xam ne anam gu jàppandi la ci daraje bis bu tedd bi nga xamante ne àttan na lépp si Abdoulaye itam mënuñu laa ñàkk sant ndax bari na looy gis muy dox ci kër gi lu ci bari moom mii fa mu toog machine ba ko doxal mën naa ne mooy yor moteur ba loolu aussi dafa baax ñu ñu xam ko yooyu itam jàmbaar nga sëñ si ni mu la tegee ak ni mu la def ak confiance bi am ci yow xam na lu tax ndax nit ku boo ko juree di léppam di sëriñam mu nangul la du la wor man yéene lépp ku mel noonu ku ko am faaw nga teg ko foo xamante ñàkk teg bëriwul te kon yooyu itam ñu ne ñaanal yàlla mu yàgg la ak si kilifa gi ba lépp li ngay liggéeyal si Abdou Lahad di ko jaar la ci moom moom itam mu nangu ko fay la lu kawe kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërëjëf dañuy sant suñu borom julli ci rasulullah yëkkati kàdd nuyoo ak ziyaar tekk ci loxo sëriñ bi mu jottali ko askan bi fi teew yëpp di dellu di yónni nuyoo ak ziyaar ci xalifa général des sëñ Muntaxa Mbàkke ñaan suñu borom may ko yaram ak fan yu gudd di nuyu sëñ Sidi xalifu sëñ Abdul Ahad Mbàkke ñaanal ko wér ñaanal ko fan yu gudd suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg loolu su borom dafa def daaw ma ñëwoon fi di ko ziyaar ci bés bi bés nii ci beneen anam parce boobu xëy na boobu maa nekkoon ministre bu yore infrastructure yàlla def ren gii ma ñëw teewaat fi waaye ci beneen boobu boobu maire maire de saint li comme sama collègue sëñ Abdoulaye nga xam ne moom mooy maireu Touba. defaat visite bi ñu ma defaloon daaw defalaat noonu même visite ma ci kontaan bu baax di remercier commission yi ci liggéey yépp parce que àdduna dafa am solo parce que mbind mu réer day fànq lu bari waaye mbind ñu denc ko di ko jàngale loolu day day yar lu bari te loolu na commission yi di def ci œuvre bi nga xam ni sëñ Abdou Lahad def na ko fii maanaam comme mission mu nekk lu am solo mission de bâtisseur tabaxkat parce que xëy na peut-être am na loo xam ni gëstu leen ci bu baax wala ngeen yokk ko ci Touba nu mu mel nii ci wàllum urbanisation wala aménagement du territoire au niveau de Touba sëñ Abdou Lahad joué na ci bu am solo. mbedd yi nu mu yaatoo xotti bi nu mu yaatoo parce que dama nekkoon Diourbel mu doon liggéey sama papa Omer Seck yoroon régional de l'urbanisme te xam naa taxawaay bu mu ci amoon ci wàllum urbanisation aménagement bu Touba parce que sëñ bu ko amoon vision la woon parce que Touba mën nañu wax léegi ñaata ñaata million d'habitants la te day yokk. dëkk fi di gën a yaatu mu gën a aménagé am circulation bu baax ku amul vision yaakaar ne wala ngay mottali vision wala di continuer vision xëy na peut-être lu mel ni doo ko def loolu nag mën nañu ko vraiment en tout cas seede ci loo xam ni peut-être ndaw la ñu woon waaye gisoon nañu taxawaay yu mel noonu donc yéen su nga amee commission bu mel nii di montrer œuvre yi di wane œuvre mi ak ay jàngatam. ak ay conseils yu mu joxe loolu dafa nekk lu am solo je pense que en tout cas pour man euh, foo ngeen gën ka maanaam wone à travers des émissions rajo ou bien à travers des web web euh, web TV parce que nit ñi dañu war a jàng dañu war a xam parce que dëkk bi dañ toll foo xam ni dañu war a gën a jàngal nit ñi mm-hmm. ci jàng yi nga xam ni soxlu sax ñu wutaat leneen na ah. mais les faits yi ngeen fi wan léegi rek je pense que buñ ko dee jàngal nit ñi di ko jotal nit ñi Sénégal du mën def lu dul loo xam ni day avancer mais ça lu am solo la sëñ bi lu am solo la dëkk dañ koy nit ñi dañ leen di jàngal fu ñu leen di jàngal toujours dëkk day màgg surtout suñu dëkk yi nga xam ni maanaam day màgg ci wàllum démographie Sénégal fi léegi vingt cinq ans boo sàggane muy egg quarante millions d' habitants vingt cinq ans soretul donc bu amee population jeune buy màgg dañ leen war a jàng dañ leen jàngal ñu xam pour gën a mën a taxaw gën a mën a réew mi loolu moo mën yóbbu réew kanam te nii ngeen koy doxalee di wane ay œuvre da ngeen personalité mel na sëñ Abdou Lahad dafa nekk am solo wéeruwaay la référence la loolu nag en tout cas ñun en tant que maire su ngeen xalaatee peut-être ñëw Saint-Louis def exposé bu mel nii man taxaw naa ci pour mën a jàppale ngeen mën ko continuer def ko niveau de toutes les communes les grandes villes def voilà mu bañ a mu mu mu wër bu wëree rek <laughs> waaw itinérante voilà comme ça mu yaatu bu yaatu ñëpp xam te loolu njëriñ la mu indi may dellu si nag vraiment en tout cas di santaat Sëriñ Sidi ci taxawaayam di ko ñaanal suñu borom euh, guddal ay fanam may ko wér-gu-yaram bu mat sëkk di kontaan bu baax di terminer di nuyu aussi les maires moom collègue maire nekk maire neexul <laughs> nekk maire moom neexul waaye dañ tàll dañ tàll loxo suñu borom rek yan yan bi nga xam ne yan nañu ko mu mu mu jox ñu téeñ bi téeñ nañu ko bu baax a baax di terminer di nuyu sama xarit sëñ aadama moom mooy toujours sama loxo xëcc ma pour ma ñëw fekkee bésu mel nii voilà monsieur le vraiment en tout cas bon yow ñoo bokk lépp. Ah, ñoo bokk lépp. di jottali si nuyoo président Macky Sall. Ah, waaw sëñ maa mi wax léegi. Ah, waaw dégg na ko. waaye gisu ko ko waaye nag dinaa jottali yóbbante bu neex di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. نال المنى في درجات الآخرة ردا لخيرهم وذهب النار بغير ولا دينار نفعهم برمضان رافعون نفعهم بالصلوات نافعون مد لهم من النفوس الباقي ذو الأرجين صفي والدباق ضيافة الباقي لدى الجنان تمو على الصوت